lii di mbootaay bii nag dañ ko def pour daal di gën a yokkal dooleel jigéen ñi nga xam ne ñu ngi si wàllu tàggat yaram bi lii di bés bi nag buñ ko dooree nag si lii di nga xam moo nekk ab waxtaan bu kii di nga xam moo di capitaine golf club bi wax te nag ñu daal di si mujjee di def lii di nga xam moo di tàggat yaram yu nga xam ne nag dina mën a jox jigéen ñi yoon pour ñu mën a tànn ban a tàggat yaram lañ gën a bugga aki di nga xamne nak mo neka veronica h sabine mo neka manager bu fajara club moom nag wax na dañ war a waxtaanee lii dinga xam ne nag moo nekka xaajaloo bu nekk diggante jigéen yi ak góor yi dina daal di jël uh, fii nag pour daal di uh, o uh, lii di nga xam ne moo nekk pour ñu waxtaanee si jeexal lii di xam ne moo nekk xaajaloo buñ def si diggante góor yi ak jigéen yi surtout sax su ñëwee ko wàllu njiite lii di nga xam ne nag moo nekk mbir mi war nañ ko daal di wax parce que soo xoolee jigéen yi dañ leen dee aaye wala sax ndaw yi dañ leen dee aaye lii di xam ne moo nekk yeneen béréb yi lii nga xam ne moo nekk njiit te nag ñu daal di gën a dooleel jigéen yi nag seen wàllum jàng bi te nag lii di nga xam moo nekk wàllum am liggéey bi tamit war nañ ci gestu torop ñu jis ne nag ñu emale mbir mi. Fatoumata Diakhoumpa Cissé former speaker bu National Assembly moom nag wax na lu tax ñu war a daal di màggal bés bi Women's Day lu am solo la trop te nag dañ war a daal di màggal bés yi jigéen yi nekki sax ñun kontaan nañ a ñu gisee ne góor yi ñu ngi daal di màggal bés bi loolu moo waral nag ñun foog ñu gën a yokk suñ kàttan pour daal di gis ne nag lii di mbir luñ daan def ñu gën koo yokk te nag waxtu jot na nag pour jigéen yi daal seen bopp parce que golf soo xoolee nag am nañ njëkkee li ab jigéeni yi capitaine si biir ah, fii nii waaye nag nekkut Gambien kon nag maa ngi daal di oo jigéen yi ah, pour ñu génn ñu fiixal seen xol yi niki sax lii bés la bu nga xam ne ñun ñoo ko moom. lii di ah, country representative bu UNFPA moom naka daal na wax lii di nga xam ne moo nekk celebrate lu tax ñu daal di ko fa def fële na Safajara Golf ñu bari dinañ daal di jaaxle lu tax ñu daal di màggal lii yi des uh, fii nii uh, soo xoolee nag lii di Nelson Mandela moom nag wax na ne lii di tàggat yaram moo mun a asi uh, wëcceeku yu bëri si biir réew mi lii di tàggat yaram daf day tax nag nit yi nekk benn tàggat yaram amul lii di nga xam moo nekk xaajaloo te nag lii di xaajaloo diggante jigéen ñi ak jànq yu ndaw yi soo xoolee nag si biir Gambie bi toll si 51 percent loolu yëpp ay jigéen lañ jigéen yooyu noonu nag ñoo bokk si lii di nga xam ne nag moo nekk cabinet bi International Women's Day bés la bu nga xam ne nag dañ ko teg pour daal di màggal lii di jigéen yi sa adduna bi nekki sax lii di jigéen yi nag ñoom seen seen tànk bu rafet buñ nekk di def sa biir àdduna bi